عليك صلاه الله ثم سلامه من العبد إبراهيم شوقا ومخرما أتيف صرا أم أنا ركبي يمما مواتين خير الناذن لزير زمما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فهو رفيع الدرجات والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi bu ngeen déggee jotaay bi bu ngeen gisee jotaay bi dégg tagg yenent yi ñu tagg yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sayrul xal bi suñ mbokk taxawee ko léegi ngeen xam ne am na xew-xew bu mag bu ñuy waajal nekk suñu kanam xew-xew boo xam ne ñu ngi koy def ci ndigalal Mawlaay Cheikh Ahmed Tidiane xalifa xalifatu saahibul fayda ak Mawlaay Cheikh Mouhamadul Amin mi fi représenté xalifa bi fii ci Dakar groupement ansaruddin din ci njiitalal président Cheikh Yoro Dembélé ak ñi koy jàppale ci bureau bi yëpp ñoo am mbégte di leen yëgal di leen wax ngeen waaj le 18 octobre xadrar jumaa bu mag bu ñuy def fii ci Géejawaay ci département bi te ansaaru diin di ko taxawal ñu ngi koy defee ci fi ñuy wax marché jeudi fii ci Géejawaay ñëpp xamandoo ko fi waaye it yematuñ ci ñu ngi woo bépp fédération boo xam ne mi ngi fii Dakar waa Dakar waa Tëngéej waa Pikine ak fu waay mën a joge fii ci Sénégal rek ñu ngi koy woo ci xadatu jumaa bii nga xam ne ci suñu ndigalal kilifa ak ay ñaanam ci lañ ko taxawalee ñu ngi leen koy yëgal e, dale ko ci daayira yi nga xam ne ñoo ne ci département bi ak soppe Cheikh Ibrahima yi ak taalibe yi waaye nag loolu yëpp kenn du ci jiitu ansaaru diin ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale di ko wéttali ci liggéey bi ñu leen koy yëgal bu baax damay jox micro bi président Cheikh Moussa Dembélé ko defé mu yeggali liñ ci wara motali mottali mbokk yi ngeen xamé ko nonu le 18 octobre fi ci marché jeudi Guédiawaye way hadratu juma bo xamné kep kuy jullit woo nañ la ci wassalaamu aleykum alqa'il يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الحمد لله القائل ajibu daa'iya llaahi wasalaatu wasalaamu ala arsalil mursalina sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an ashaabi rasulillahi wala hawla wala quwata illa billah wa radiyallahu an ilxatmil katmi mawlana abil abbaasi wa rida taama an mawlana cheikh al islam alhaaji ibrahima Niass mbokk yi ci yàlla mbokk taalibe yi mbokk jullit ñi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen uh, yëgal ci ndigalu sëriñ bi cheikh ahmed ibrahima ñas cheikh tidiane ahmed ibrahima ñas bi nga xamne moy khalifa sahibul faydatu tijaniya ak uh, cheikh mohammed amin ibrahima ñas bi nga xamne moy representant khalifa bi fi ci dakar ak uh, président national bu jamiyatu ansarudin cheikh munhamina ibrahima ñass ak mbooleem coordination bu nga xam ne mooy ansaaru diin te Mouhamed Lopez jiite ko ak mbooleem taalibe fu ñu mën a nekk ci ndigalu Cheikh Mouhamed Amin Ibrahima Niass bi nga xam ne moo doon taxawee jotaay bi mooy jotaayu xadaratul juma xadaratul juma bi nga xam ne nañ ko def ci at yële weesu ren lañ ko bëgg a def mu nekk troisième édition jàpp nañ ko fukki fan ak juróom-ñett mooy le 18 octobre fee ci marché jeudi su soobe yàlla ci teewaayu suñu sëriñ Maulana Cheikh Mouhamed Amin Ibrahima ñas ci xew-xew bu màgg boobu nag xew-xew bu nga xam ne xew xew jullit la xew-xew bu nga xam ne xew-xewu dundal lislaam la ñu ngi woo mbooleem taalibe yi fu ñu mën a nekk góor ak jigéen mag ak ndaw taalibe yi nekk ci département Guédiawaay yëpp ak taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci département yi nekk ci dakaar yëpp ak fu waay mën a jóge ci Sénégal ñu ngi lay invité ci bés bu màgg boobu bés bu nga xam ne bésu màng ay xéewal la taseeg suñuy sëriñ suñu mm, sang yu tedd yi jël si ñoom ay leçon jël si ñoom ay leer yaakaar naa ne bés boobu eh, eh, jarul la wute kon ñu ngi leen di woo ci bés bu màgg boobu nga xam ne fédération groupement bu nga xam ne mooy Ansaarud-Din bu Géejawaay ñoom ñoo koy organiser fii ci marché jeudi bésu fukki fan ak juróom la le 18 octobre ñi ci woo mboole muqaddam yi rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk daayira yi ñi nga xam ne daayira ci seen waaw la ñuy wéy mooy muqaddam yi ñu ngi leen di woo ñoom ak taalibe bés boobu daal ñu ngi ñaan yàlla bu kenn lal benn mbalaanu wasifa ci sa xadara ñun ñëpp nañ ko bokk def ko benn mbalaanu wasifa fële ci marché ca di ci suñu kanamu sëriñ Maulana Cheikh Mouhamed amiin Ibrahima Niass ñu ngi ci woo ñëpp lii nag boo ko gisee da nga xam ne ne waa ansaaru diin bu ja groupement Guédiawaye ñoo ko woote ci seeni bureau bi ak mboolem taalibe yi ñoo ko woote kon ñu ngi woo julli ñëpp di woo mbokk taalibe fu ñu mën a nekk yàlla ñu si yàlla àggale ci jàmm te ñu fekke ko ci tal ko yàlla defal ñu si benn bépp tawfeex wasalaamualeykum wa rahmatullah